Ousmane Sonko bi muy dem Touba ñun ñépp dañu ne tekk di ko xool ba xam nan lay duggee Touba nan lay jëflante ak waa Touba naka la mbir mi di demee ndax xam gi nu xam léegi ni mbooloo mi mel ci moom nekkat mën naa déborder ñu ne tekk di diglu waaye yàlla sabaraka wa moom it suturaal na ko lool ndax ni ma ko teglee ci poste bi rekk Ousmane Sonko dugg na Touba dugg bu rafet la àqi Touba ak wormay yee lool rawatina jumaa ji nga julli si ànd ak mbooloo moo xam ni contrôlé woo leen mënoo leen a contrôlé ñoom ñépp nga mel ni kuy dox ci kaw ay nen te nen bu toj rek mën naa jur musiba ndax penku jumaa ji mat naa wormaal biir jumaa ji mat naa wormaal barabu sëriñ bi mat naa wormaal sëriñ bi ci boppam mat naa wormaal waaye loolu lépp yàlla dimbali na ko ci ba amu ci lenn loo xam ne ci aw doxinam moom ak ñamu àndaloon gis nañ ci lu ñu leen di reprocher macha allah yàlla nag moo wormaal sëñ Tuubaa wormaal gu wóoru wóor kon loolu bu ñëwee yàlla sàmm worma jooju mu jaar ci moom mu sabablu ko loolu tabaarakallaahu loolu tawféex la waaye daf ca dolli loo xam ni mbirum yàlla rekk la ndax nga génn jumaa ji nit ñi di yuuxu nga taxaw ne leen wax leen jëre jëfe sëriñ Tuuba loolu c'était lu coup à marquer parce que ay nit yuy yuuxu mënoon naa mënoon naa ñaaw lool ci ci ci ci urumu jumaa ji waaye jërëjëfe sëriñ tubaa ju ànd ak nit ñi di jéggalu parce que jàppuñu woon ne noonu la war a demee bëgguñu woon mu demee noonu loolu day sant nañ ci bu baax sëñ tubaa waaye sant nañ ko ci moom ci ni mu taxawee ak ni mu wormaalee barab bu tedd bopp wormaal Serigne Mountakha ba mu dem